Magdalene moom la sant ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. alors boo amoon ay témoignages de remerciement ak conseil bi nga xam ne moom nga koy jox peut-être célibataire mais c'est pas grave. waaw man a célibataire laa nag waaye célibataire nag boo xam lu baax la nag célibataire lu baax nag boobu léegi maa casting mais casting bi léegi mu na incha allah ndax xewu tàngoor dafa métti man conseil xam nga nag célibataire mënut a conseiller marié dama damay bañ a waani dama bëgg lu ma si bëgg a wax yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla barkeel sëy bi yàlla sëy sëy bi def sëy yi jàmm ci aras li ma a constaté bi nag man ay waaye alhamdulilahi rabbi alamin léeg maa takk jabar son yu Sidi Diop ne ci baas ba yàlla jàmm yàgg non maanaam noo xam ne musique c'est la musique qui gagne c'est le Sénégal qui gagne c'est l'Afrique qui tey Sidy Diop bu xewlee lu toll ni Zénith de Paris moo ko def fële ca Paris la Villette le 29 juin ñu ñun ñëpp ñu ko war a xar am tubéy xam ne bu amee ndam ñu am ndam bu amee defet ñu am defet ñu koy dégg na grand ñu naan ko Matar Diop suba teel liggéey liggéey bu doy waat ndax artiste yu bëri Sénégal bi dem Zénith ci loxoom nañ jaar yàlla ko yàlla defal jàmm Zénith le 29 bi réussir ak jàmm mën naa ci communiquer dinaa dem ci répétition Sidy Diop bi bëri ko Euh, non xuloo amu fi xas amu fi supporter rek ñooy ruube ak waa tribune de Diourbel waaye xaar rek moo man xaw man man sama bopp laa ko man ma keneen bu ngeen laaj keneen ngeen laaj keneen question man mi ngeen laaj question mosuma xuloo booy fekk mosuma xuloo ak bis dawaa ñu defee laa tawee ren képp di wax waa Cheikh kàddu suñu borom jàmm dafa kenn nag ñu ma wowul fii ma ñëw nii si délégament daf maa évité moo tax ma ñëw bari xam taan taxu ma dem gënd bu ma yëgalul kuñ ma woo du ma fa dem foo gis ma taal sama sërëg di fa taal sama fay xool la loolu suma philosophe la su question yëg boobu affaire bi gëm-gëm la rek ndax bu ma ñàkkoon fête ay anniversaire ngay dem ay happy birthday doon na président ama présidence c'est le chemin côté présidentiel yéen ñi yëpp amul kenn buñu bokk ko def ay journalistes ngeen génne ceci amay diplôme man yoruma diplôme ceci laa jàng diplôme dara ñett phrase laa war a at moom écrit borom am pour mu dama dem Nations Unies jàkkaarloo deux cent cinquante président ci àdduna ñu taxaw kaw maanaam bu dem Nations Unies da yëg avion président man sama téléphone laa demee Nations Unies ci laa demee CEDEAO ci laa demee kon nu ma ko war a valoriser ko fulaal ko nit booy sow sax naa war a sow balaa bi tooy ñëpp ñu yëpp ñu sawante man foofu laa ne sa waay euh, mois ci ci ginnaaw Sonko ak Diomaye mosuñu génn RTS génn bu leer wala génn ko génn trente secondes léegi ñoom ak RTS ñoo bokk ndey ak baay man état na ma lépp di laay topp topp ma nekk dama focus man je suis politicien yor ma carte APR yor ma carte Pastef yor ma carte beneen parti mais képp kuy président euh, suñu wërsëg boole ñu dinaa liggéey te yàlla rek te xaaral ma benn nag benn arrière wala benn retour man damay liggéey te yàlla tax rek comme ni ma mel ak Waly Ballago Seck ma mel loolu si déet musuma ñàkk wax Sidi Diop Sidi Diop sama xarit la Sidi Diop la may wecc sa la may jox sama wecc ma ah, ko ah, Sidi la lebal sama jox ma ko moom may way moom may sigil moom may sagal moom may yëkkati sama xarit la sama rakk la lépp jaar na suñu grand ñu naan ko Matar Diop Soubatel jàpp dara ci am boo gisee ak xamante ne affaire boobu man aw ma xam ne ak kenn nee naa man ma ci compétition loolu ay ay raayante la du classe ndax su ba jël si la bopp ne ma ne noonu loolu pare pare ak invité loolu affaire da dañ nekkal suuf am loolu maanaam ceeb bi rek ma xam yàlla ku yàlla bind. suuf amul suuf yéen a jàpp ay minimiser nag yéen a jàpp minimiser yéen a nekk foofu mën na ma foofu naan gars yi gars yi yéen ay gars yi rek la presse sénégal yéen ay gars yi amul polémique ndax ñoom ñaar mosu ma ko mos ñoo waxanteelu ñagas waaye si ñun tamit ñooy kaas rek ak ak ak supporters yi mais si ñu non defoon bi amul soo bis moo demee noonu rek soo bis maanaam si ñu mosu wax lu ñagas Wally Seck waaye mosu wax lu ñagas si ñu ñoom ñaar seen lami loolu yaa ko dégg dégguma loolu. mais mais ñaaw Boucher nee na mooy Sinapooru Wally Seck tey bi ñu léegi émission loolu yëpp du problème man maay Sinapooru Pape Diouf man maay Sinapooru Sidi Diop maay Sinapooru euh, Viviane. mais sa jënd glace bi lan moo ko waral. du jënd glace man foofu laa ne man nee naa la man ne ci compétition ci mission laa ne damay mission rek. Hmm. yàlla ma jëloon yàlla ma sural dara. mais loo bëgg léegi di di boole ay xuloo da lay jëpp sax. mais ñi wax naan ñaa mosagul ndax gouvernement ko. man sama wërsëg bu dee da ngeen yaakaar ni le 2 avril la wërsëg bi jege nga xam ne kon man gàtt naa wërsëg. a maye tey laa gën a mën a a a ma yëgee jakartaa noonu laa yëgee avion di ko yëgee ci sa place di ko yëgee ci bus di man foofu laa da ko fi da ko fi wax sa xalaat daa jeex ci réew mi wala wala ko mais xalaatam la il a plein droit plein droit wax xalaatam Aliou suma xarit la suma kilifa la suma waay la li mu wax xalaatam la rek dama maîtriser ma làmm man làmm li ma xam muy Modou Lo muy sama mbër muy sama te yàlla def na ko roi des arènes da ngeen ci dem ba Aziz Ndiaye biroom Zador ngeen laaj ko posé ko question bu tontu mais man li ma roi des arènes Modou xarañ loola doomu yaa njóba Serigne Mariama Borom bi njëbante sama mbër bi ah, yaa ngeen jëf yàlla yàlla defal leen jàmm ah. soxna si tey mariage ma fi ñu Aziz Ndiaye indi ko fi yàlla yàlla defal la jàmm nga ci ràmm rek ko fi dëgg waaye mais ngir yàlla waaye mais ngir yàlla toog leen waay toog danañ amal waaye mais gars yi dañoo dimbali ñu ci biir géew bi waaye mais nan toog kii xaw ay nitam ñu ñëw Cheikh Cheikh Anta kii xaw ay nitam ñu ñëw waaw caata gi noonu ci ginnaaw Moussa ngi nii toog nañ bàyyi gars yi toog rek Moussa dugg caat dugg journaliste yi ngir yàlla yoonte mais toog leen nañ ñu jàkkaarloo nii sa biir may sa biir maa aji naa ko ci loolu jàkka respecté naa mbaay yow boo ñëwee ànd na xam ni ñëw nga jaajëf ndax nag le centre du peuple le centre du àdduna le centre du monde le centre du Sénégal max Thank you.